n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique totale Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daal di fay def alimentation daal di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp loo soxla boutique Total yemul foofu dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow buti kër xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ni décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci tuubaa am décor am salle VIP bu baax ñu climatiser ko ba mu sedd waaw teel leen a réservé pour seen i conférence seen i réunion seen i cérémonie seen i pause café seen i ndaje lu ngeen te soxla rek équipe bu mucc ayib boo xam ni ñëpp liggéey rek la ñuy def ña nga foofu di leen xaar terrasse ba am na pâtisserie am nañu traiteur woo ñu ci 33 976 03 39 77 899 45 45 wala 76 354 44 44 wala 77 583 17 17 boutique Kër Xaar nekk dans la ville sainte de Touba. yaa Allah yaa Allah loo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la nga ne li ci la xewal yi yokkoo shahru ya karim ramadan ya habib ya habib ramadan yaatalal sa xol sàkku yërmande ngelaw waay bu ci mooy yàlla tuubal jéggalul dellul ci yàlla lu ci lu baax bul ci tay mengook safaan ba nanga ko baay te jàng rek amin jàng ko war a dundal. Hmm? dañ moo tax it man de moom xam naa ne bu doon mën a rek dee na bu yàgg. ak ci sikar ak ci lépp. waaw ah, sikar de mën naa ko waaye jàng de moom. Hmm. man de yaakaar naa lam yàkku ni laa bàyyee. <laughs> lam yekku ni sax baax na. baax na lam yekku ni daal yaakaar naa ne te sax euh, xam naa ne daal sori yu woon de. waaw mm. ah, fàtte naa aaya ba de waaye soriwuma ci woon <laughs> <laughs> waa yow nun koy waxeeti Masamba mm-hmm. waa Matar moom foo koy dégg Matar waaw nag gën na am ab dég waaye xam naa ne fépp nekk yàlla rek dafay fay nekk la hmm. ndax gone gu bëgg lislaam la hmm. ca ku tege ci ihdina siraatal mustaqiim la mm-hmm. gone gu tege ci ihdina siraatal mustaqiim la gis nga almuxtaar ku ne war na koo sant waaye rawatina man mii lislaam a ndax man de fii jaar naa feeg Matar bàyyi Sambo mhm. weeru ngëneel la weeru jéggale weeru mucc tamit moo tax ndeysaan sëñ Tuubaa da cee wax da cee bind lu doy waar ndax dafa yéene nit ñi jàmm dafa yéene nit ñi ñu am ak texe dafa yéene nit ñi ñu seexlu lu bon seexlu lu ñaaw ndax nag euh, nit bonul de benn doomu aadama bu bon amul jëfandikoo lu bon rek moo am waaye nit du bon moo tax weer la woo xam ni bi bii uxliqa baabul lee am weer la boo xam ne dañ ciy ubbi dañ ciy tëj ay bunti njàqare te du ci ubbi ay bunti yoo xam bunti texe lay doon mu delluwaat ni zakartumullaha ala sahri siyaam na ngeen sant yàlla ci weeru tedd wi de na ngeen sant yàlla ci weeru tool tedd bi de waaw ndax ci ngeen di tàbbi àjjana kon nag loolu ngëneel la moo tax day jot bu ñu jógee ci weeru mel nii ñu sellal na amaana yàlla jéggal nu ndax yàlla ku bari yërmande la beneen bi ma lay dolli mooy li ma laaj léegi mooy sëñ Tuubaa dafa bind ca téere bu tedd Masaalikul Jinaan daal ni wala tuqasis fadlan rabbi xat ala bii taqaddumin fa xatta jàlla bul jël mukk ngëneeli suñu borom yu baax yi jagleel ko ñu dikkoon rek bàyyi ñëw baax du wees mukk saa boo jubloo ci sellal jublu ci suñu borom rek yàlla mën la cee may ndam ak nag bu doonte dem nga bañ li fekk ñu lay tëral ci koosu bàmmeel tuub du wees jéggalu du wees waaye nag yàlla nañu yàlla boole jéggal mm-hmm. mm-hmm. bu du woon ak moom mu ñaaw de ndax euh, may fàttale ko samay jamono <laughs> ah ndeysaan man dama laa tax li koy dem rek. gindi na keneen ku dul yow. am nga jaar jaar di. Mhm. xam naa ne daal hee sàngara ni muy def nit baaxul. yàlla bu la bëggee baaxal. kenn mhm. mun laa tax a bon. <laughs> booba maa ngi nekk ci naanum sëng moo xamee ne. Mhm. gis nga su ma taxawee fii ay kàddu rek laay gis. Hmm. ak i suuruur. yow mi maa la ko heure bii da daan fekk maa ngi ne xamuus maa la ko wax ne sëy di fetali tan mbëkk naa ko ko fàdd naa ay kàdd bule naa ay suuruur wéq naa ay tàndarma lu ne def naa ko heure bii da daan fekk ma ne xamuus ca mi nan laxraaf lay dem man mii maa ko saabaal kay ah waaye ndeysaan mujj gu jar rafet a jarañaan dëgg la puuj paajum bëccëg ak lu ne rek naa leen ndeysaan koor daal rek koor daal a gii rek cay moom daanaka da ngay xëy sax bant rek ba ngoon jot man euh, Samb euh, ñun dañoo war a fonk jaamu yàlla mm-hmm. parce que euh, mag ñu baax ñi fi jiitu oh. yàlla rek lan defoon muy lépp ndax ki ñun muy Seexul Xadim fekk fi yonent bi ci saahir waaye ci baatin liggéeyal na ko ba suñu borom damoo ko allah ndax mi naan ko ba bi allahu kiraamal xuda wa bi baaxaay ine bi usura suñu borom de damoo na ma bàkkoo na ma puukare woon na ma ci ganam gaa ñu baax ñëpp loolu ci woon saar la ne kooku ci xasida la Sëriñ moo ko bind sañ sëñ Musaa Ka mi ngi naan ko jàng rek a wóor sëñ Musaa Ka mi ngi naan ko ci mulkeeg malakoot lay fanaane gàmbaal malaa malaakay jabaroo far ko wër di sàbbaal kum tafli loram wi tafal ko bu suraa mu tàggoog lori duniyaa kasaa ko xuraa kooku mooy Cheikhul Khadim moom moo wax arraytani sirra rasulillahi moom kese moo ko fi waxagul arraytani sirra rasulillahi moom kese moo ko fi waxagul Samba jant ba daan tim yonent bi mm-hmm. di tim gaa ñu baax yi moo ni tim ba tey te di jikko yi kay ñoo yàqu rek waaye uh, lu suñ suñ mm-hmm. suñ jàmbaar ji li mu wax mm-hmm. mooy Cheikhul Khadim fekk fi yonent bi ci saahir waaye liggéeyal na ko ba suñ borom fay ko ba xabiya laahu kiraaman xula bi baaxaa i nabi ku sala suñu borom de bàkkoo na ko damoo na ko ci ganam gaa ñu baax ñëpp bu fekk fu yonent bi te jamono ji ba tey jamono jooju ah jàng neex waay kay ñoo war a soppi ca tege ci ihdina siraatal mustaqim xaama ne koor daa waroon a doon juróomi weer waaw ndax ke koor weeru weeru ngëneel la. ah bu doon juróomi weer doon a baax de man de sama classe gi. ndeysaan dëgg la nga xam ne ndeysaan ay mbaxi di puuj paaj lu ne laa daan def waaye léegi day da ngay xëy sax bant ma ngoon jot de. si si sam moo moo moo